lettre de polémique bi na nag Fatou man dama dama gëm ni euh, képp ku ci tontu tontu bu leer góorgóorlu ci ba mu leer dinga nga tontul umma islam bi yépp waaye képp koo xam ni it jàpp naa ni euh, defoo ci ak taxaw seetlu Cheikh Omar Diagne mën na la yóbbaale ci njumte bu rëy bi ko dal lettre bi kan moo ko bind sëñ Cheikhouna mi nga xam ni moo jiite comité bi dafa am comité de organisation am commission Serigne Bassirou Abdou Khadir maa ngi koy ziar di ñaan mu yàgg fi te wér moom moo jiite comité bi sëñ seexu naa jiite commission bi nga xamante ni si mooy dalal gan ñiy jógee bitim réew pour ñëw ci màggal gi muy cérémonie officielle bi loolu bu ñu màggalee ba yeewu lay doon mhm. gan ñi ñu wax ni ren toll na ci quarante personnes wala lu ko ëpp sëriñ seexu naa moomu dafa jiite comme ni Cheikh Abdou Bali jiitee commission des organisations maa ngi koy ziar bu baax di ko jox wàcc waayam suma xarit la sëñ Cheikhou Naye jiite commission bi nga xamante ne si mooy recevoir gan ñiy bàyyi ko bitim réew depuis bi mu ko jiitee ba tey bala ñoo ñëw ci jiite gi dañuy dañuy dañuy ñëw ci li indi comité bi ak njiit li Alaaji Baara Fàllu Sëriñ Saaliw dafa wuy ji boromam yàlla yàlla yokki leeram taf ci barkeem Alaaji Baara ñëw doon xalif général des Mourides mu ne comme sët la nañu ko gën a yaatal ci la ñu def Cheikh Bass Abdou Khadir baatu yoon wi ci lañu ñu créer comité boobu Cheikh Bass nekk ci bopp bi mu am ay commission commission boobu depuis 2009 daf doon bind ay correspondance bind jox président de la république secrétaire général du président pour demande ko ni ko gan ñi ñëw ñu ngi sàkku ci état bi mu utal leen daluwaay ci ndakaaru bu ñu dalee ci ndakaaru ba bët set ñu jox leen ay oto ñu mën a tegu ci yoon bi ñëw Touba fekk cérémonie bi ginnaaw buñ ñu ziaree xalif ba pare état bi nangul leen loolu depuis 2009 temps Ablaye Wade ñaari tontu dafa am seex Bass dafa tontu euh, ñu dégg euh, sëñ Seexu na tontu leeral léegi ñaar yooyu yëpp laa la bëgg faram fàcceel lu ci nekk li ko waral. Euh, bi bi loolu amee. Mm-hmm. sëñ Seexuna 2000 loo def 2009 ba 2024 def nga ko 15 ans fukki at ak juróom. Mhm. lu yàgg la 12 ans yi président Macky Sall yëpp géré na ko comme ni ko Abdoulaye di géré 2009 ba 2012. Mhm. Macky Sall ñëw 2012 ba 2024 mu continuer ci kenn mësul dégg comme daanaka euh, loolu sax ñu bari ñi ngi ko xam ren. Mhm. comité boobu. ñu bari ñi ngi ko xam ren te ñi ngi ko xamee ci màggool Touba bi te lu tax ñu xam ko mooy wecci worma ki Cheikh Omar jaañ doon jéem. waaye alhamdulilahi rabil alamin gën naa xam kan mooy sëriñ tubaa euh, sëñ bi bi mu bindee tontu wuñ sëriñ bi xam nga kuñ tontu mhm. comité organisation bi nañ tontu comité bi te commité bi Cheikh Bass moo ne ci ci bopp bi. moom moo jiite euh, comité euh, d'organisation. voilà màggal màggal Touba bi euh, Cheikh Gaye Gaynde Fatma jiite li nga xamante ne communication. sëñ Cheikhouna jiite commission relation extérieure d'accord léegi ñoom bu dee sëñ Cheikhouna moo leen bind. Mhm. kan lañ war a tontu. sëriñ Cheikhouna. Mhm. ñoom nag dañu tontu tontu wuñ commission bi commu communauté bi lañ tontu. indi confusion indi confusion xam nga lu ñu ci jublu. Mhm. jaxase xelu Sénégalais yi. jaxase nit ñi moo tax Cheikh Bass bi mu génnee tontu ni. Mhm. man lettre boobu binduma ko te yëguma ko. tu as raison. Mhm. Cheikh Bass bindul lettre bi. Mhm. si wu ko. au nom ko. au nom de du comité d' organisation mais benn commission. bu bokk ci biir comité bi. moo demande lettre boobu état comme ni mu ko yàggee def 2009. soo ko mënul yaa xayti mu laa nag kan nga war a tontu. commission bi. ci turu sëñ Seexuna mi ko bindoon mais dañu jéggi ñoo ko bind. dem ci ki nga xamante ni sii mooy Cheikh Bass Abdou Khadir tontu ci moom directement. Cheikh Bass génn leeral ni moom lettre bi du lettre am ñaari lettre la ñu bind. te sëñ Mountakha moo ko signé te état bi recevoir na ko sëriñ bi it wax ni moom ñaari lettre la bind benn mi ngi ko bind ministre de l'intérieur pour ñu yombal euh, ñi nga xamante ni sii ñoo ñëw visa yi ak passeport yu yeeg yu ci aju. beneen bi ci des mooy daluwaay wi ñu leen a dalal pour jox leen ay oto ñu mën a ñëw fekk si cérémonie bi comme nañ ko doon defee 2009 te te te metti murit yëpp am na ci sax ñenn ñu koy jéem a layal pour politique man na dama jàpp ni mhm. bu diine taxawee très bien taxaw mhm. man ma choisir diine très bien bu tarixa taxawee mhm. politique taxaw man ma choisir tarixa lu tax li ma tële ci sama bopp ñoom ñoo ma ko mënal très bien li ma umpale ci sama bopp ñoom ñoo ma ko mën a xamal Cheikh Omar daf ci waxoon wax bu doy ay jamono moo tax bu defee lii bettul murit yi dañu fi woon danañ dem ba jëmmi jamono tariixa dina fi jóge mhm. sénégalais yëpp na patt ci loolu man boobu laa ne woon ah mu dellu waxati daat ni euh, li nga xamante ni si mooy soppi xaalis ci wolof pour leeral pour nit ñi gën a dégg li mu wax mhm. soppar cim xaalis maanaam jël xaalis bu baaxul defar ko ba mu baax faux nga def ci tappale ba mu baax nga di ko jënd ka jaay nee na tariixa yi ñoo koy def kañ nañ koy def moment wu tamxarit weeru tamxarit ba après gàmmu léegi tamxarit ba après gàmmu ñaari événement yi fi gën a rëy mooy événement Touba ak événement wu Tiwaawoon ak Njaasaan ak Ñaseen ak yu ni mel maanaam màggal Touba laa bëgg ak gàmmu léegi mu ne dañuy làqatu ci ginnaaw addiya yi pour mën a soppar ci xaalis ñan ñooy joxe addiya suñu mbokk chrétiens yi joxe wuñu addiya bu ñëwee addiya xel yi day dem ci tarixa yi mm-hmm. kooku su waxee loolu démb sénégalais yëpp jox ci seen nopp xipp ci seen bët na tey mu jël benn lettre boo xamante ne si dañ ko doon jox état depuis 2009 état di ko recevoir di ci taxaw taxawaay bu rafet murid yi jox ko ko ci sutura mu waroon leen a tontu même suñ ko mënul ci sutura ndax nit ki nag sañ nga ko diis lu mënul mu ne la mënuma ko du force ñun murid yi bi ñu koy joxee joxewuñ ko pour mu nekk force. ma daaneel ñu jox ko ko ci sutura. waroon na même suñuy suy suy répondre répondre bu négatif. mu def ko ci sutura. bañ a rendre lettre bi publique comme ni ko gisee. comme ni ko sëriñ bi waxee parce que gisuñu lettre bi nga xamante ne moom lañu adressé mais ñoom bi ñu génnee bi ñu tontu moom la. Sénégalais yi teg te xam nga li ci garaaw. merci secrétaire général du palais lañu lañu lañu lañu adressé lettre. mais Cheikh Omar moo tontu. loolu mooy li ci garaaw beneen bi ci des. foofu la uh-huh, ma ma terminé foofu euh, sant yàlla xamul tax ju sant yàlla mooy murid yi bi ñu yëgee ni état bi dafa gàntal ganu Serigne tuubaay yi ñi nga xam ne ñoo war a dal ci hôtel bi ñi nga xam ne ñoom lañu war a indi ci cérémonie bi muride kenn ku ci nekk danga làmb sa jiba teg ci taabal ji ba sëriñ bi am lu ëpp lu ko état doon jox mu dalal ay ganam recevoir leen indi xam nga lan moo gën a neex ci ci ci mbir yi mooy yëg gi nga xamante ne si ni sénégalais yëpp maase nañ ko yëgandoo te génnul benn yoon ci sëriñ bi ñoom ñi nga xam ne ñoo gàntal ñoo commencé waat jéebaane seen bopp xamuñu lan moo leen wax loo moo tax ñu wax waaye li ci kanam réew li bët Sénégalais yaa ngi xool ñoom it ñi ngi xaar mu ngi noonu Abdou Diallo ba tey eh, ci lettre de la polémique mën nañ koo wax loolu wax jur na coow lu bari bari eh, yéen def defuñu donc mu indi ay eh, peut-être lënt lënt ci bopp ñenn ñi par rapport ak li nga xamante ne wax nañ ko ñeel wàllu rationalisation des dépenses est-ce que jàpp nga ne njiitu réew mi ak son premier ministre ba ñuy dem comme lu ko Bougane waxee yëgoon nañ bu baax ne am na lettre bu jukkee ca présidence soxna Fatima fo loolu fi nga daanelee moo solo parce que bi may lire euh, communiqué wu euh, ah. président gëm sa bopp Bougane dafa rappeler euh, la dat bu lettre bi muy le 31 wane ni ni dat bi ñoom bi ñuy dem Touba parce que ni mu ko titré rek la si grand théâtre la ci la ci Ousmane Sonko ak Jomaay def parce que bi ñuy dem foofu xam ñu ni ni eh, lettre bi existe na